aw hamdan lillahi taala alladi la tutimmu salihati illa bi fadlihi wala tanaalu darajatan illa bi awnihi wa salatan wa salaaman ala mabuusi haadiyan wa siraajan wa mualliman sirru lwujudi wa sirru zaati mursiduna bahri nada nicmatal ida zawil jurabi sayyidul arab wal ajam muhammad ibnu abdullahi xayru xuraysin tibbi tibbihimi sayyidil awwalina wal axirina ajmain aqulu min baadi iftitaahi qawli bihamdi di tawli sadidil qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi fi daje mbokk pas-pas mbokk diine mbokk xadara ñoo ngi idaafal suñu nuyoo ci nuyoo sang yi fi doon nuyoo sànq ñoo ngi jël suñu nuyoo di ko teg ci nuyoo sang bu tedd ba di alxaaji imam Masilla Kan mu tegal ñu ko ci loxol sang bu tedd bi di Cherif Ibrahima Haydara Atijaani tabarakallahu mu séddale ko mboodoo mi ndax moom nuyoom rek moo gën a jotale suñu bos tabarakallahu ñu bëgg a ci ñaareelu saxaaba ci sayyiduna Muhammad ñu koy wax Omar ibnu Xattaab dafa bëri ay tur nekk waaw sayyiduna Omar dafa bëri ay tur te dafay wax ni kasratul asma tatullu ala sarafi musammayaati tur yu bëri dafay tegtale tedd ngay mbir te saxaaba yi ñoom ñépp kenn ku ci nekk tur biñ lay woowee bokkut ak beneen bi bokkut ak beneen bi bokkut ak bi dañoo bari ay tur seen njàmbaare nekk moo leen may loolu Omar ibnu Xattab dinañ ko woowe Sayyiduna Omar dinañ ko woowe Abi Xafsinin dinañ ko woowee Alfaaruq dinañ ko woowe Amirul Muminin tur yooyu yépp daanaka Omar nekk na ci jëmmam benn bu ci nekk nekk ak li muy firi benn bu ci nekk ak li muy tekk Omar moo di turam alfaruq ñoom ko xaree ci kiy tekkale dëgg ak neen maanaam sayidna Omar yafirru lahu saytaanu saytaane da koy daw mbedd bu mu xuus benn fan rekk seytaane da koy daw du fa ci loolu nekk ak ni mu mel ak alxaqu maa Omar xaysu xaysu maa kaana Seydina Omar fu mu mën a toll day ànd ak dëgg ak lu mën a ñëw da koy waxee ci dëkk yoo xamante ne ci moom la bàyyeekoo moo tax ñu tuddee ko alfaaruq kii tekk la dëgg ak neen tuddee nañ ko amiril muminina ginnaaw sayidina aboubacar sadiq mooy njiitu jullit ñi ndax moo doon nu aboubacar sadiq ginnaaw bi mu fi bàyyeekoo moo tax Seydul Xaaji Malik mi xam saxaaba yi te xam Seyduna Muhammad bi muy way yonent bi ba àgg ci saxaaba yi mu tàmbalee ci Aboubacar wa ubdiu bi siddiqu mu àgg ci Omar ibnu Xattaab mu ne usanni bi Faaruq waaw maa ngi ñaareeloo ci ñi doon Seyduna Muhammad ci Seyduna Omar ibnu Xattaab mi nga xamante ni moo tekk la neen moo tax Maodo indi tur booba amiril muminina muy njiitu jullit ñi jullit ñaa ngi bàyyeekoo ci keroog bi yonent bi génnee ca kaaba al musarraf taxaw woo yaa ayuha naas keroog kuy nit rek ñëw na waaye ràññeewul ñi gëm ak ñi gëmul keroog ndax yaa ayuha naas boo ko waxee képp kuy nit day ñëw bi mu génnee ci al kaaba al musarraf bi mu taxawee tuuti yàlla ne ko waaxul ci sa biir kër nga bàyyi naas te woote yaa ayuha alladina amanu bi mu waxee yaa ayuha alladina amanu groupe yi ñëw ñett lañu ñee ngi ñëw ba jege yonent bi di ko déglu ñee ngi ñëw ba xaw ko jege di déeyoo ñee ngi taxaw fële sol yére yu ñuul di waxtaan di xàqataay ci kaw yonent bi ne lu muy wund mu ne ñe la taxaw humul kaafiruuna du ñu ñëw fee la ñuy toll waaye dañ lay bëgg a jaxase ak ñi ngay waxtaanal mu ne ñi jot a si ci sa wet nag te dégluwuñu humul munaafiquuna ñooñu ñooy naafiq yi muzamzamiina bayna zalika laa ilaaha illa wa laa ilaaha illa ñooñu jikko yi lañ yore mu ne ñi la fekk si te di la déglu nag humul muminuuna ñooñuy jullit ña ñooñu nag bi yonante bi demee moom leen dénk Aboubacar Sadiq Aboubacar dem. dénk leen Sayyidina Omar ibnu Xattaab mii ñuy bëgg a waxtaane tax ñu tuddee ko amirul muminina bi ci topp mooy Sayyidina Omar ibnu Xattaab moo ci bi Sayyidina Muhammad ibnu Xattaab juddu fi miilaadi Sayyidina Muhammad baada salaasa asara sanna ci la Seydina Omar juddu kon yonent bi magee na Omar treize ans ndax Seydina Omar ibnu Xattaab ak Seydina Aboubacar Saddiq ak Seydina Mouhamed ñoo bokk li ñu kenn ku ci nekk soixante trois ans nga dund Omar moom la dund Aboubacar moom la dund Seydina Mouhamed moom la dund ñoom ñett ñu bokk ci leen fi ñu leen rob xoolal li yàlla di def kenn weesu ci ab yooya moo tax yonent bi magee na ko Teresa moom Seydina Omar ibnu Xattaab yonent bi taxaw tàllal loxo ne Omar fu mu nekk dëgg moo ko fay fekk mu ne jant bi musta ba tiim góor gu gën a jàmbaare Seydina Omar ibnu Xattaab mu ne ndax dafa jàmbaare moom Seydina Omar ibnu Xattaab moo tax keroog wane na ko. nga wàññi rajo bi tuuti rek wane na ko bi ñuy génn makkatal mukarrama di dem madinatu munawwara ku ne jàng na ci siira ni sayidina omar ibnu xattaab bi muy dem moom kese moo génn makkatal mukarrama te kenn ko te saxaaba yëpp sayidul xaaji malik nee wa xaajara irsaalan xaaj par xaaj xaaj bi bu ñu demee ci guddi gi xaaj gi dem ci fajar gi ñu yollee ko ndànk di dox di làkkatu ba dugg madinatu munawwara saxaaba yépp noonu la ñu demee si waa sayyidina al Omar al Faruq moom rek moo génn war fasam génn ba kaaba bi fekk magi makkatal mukarrama toog mag ñi ne xale yi bàyyi leen di daw ci naaj bi di dimbale Sayyiduna Muhammad nangam ak nangam diina ji mu indi nangam ak nangam naaj gi mën ngeen cee dee nangam ak nangam lu ne ñu du ko wax. Sayyidina Omar fekk leen ci penc mi ñu toog mu ne leen ab taal nañu ab safara ci biir jaaxal la ma benn machine fa seen bopp yi lay xaar ëllëg mu daggate ko yéen magi waa Makkatal Mukarrama mag ñëpp a xoolante ne du ma dem fajam. du ma dem guddi du ma lakkatu di dem heure bii lay dem naaj bi tàng na jër maa ngi nii jàkkaaroog yéen mu wër xajaratu aswad trois fois tourné jàkkaaroog nag yi xëcc naab bi fas bi yëkkati ay tànk ba ci kaw wàcceewaat ko mu ne leen ku bëgg sa doom tey ji ma topp ma man Sayyidina Omar ma ngi makkatal mukarrama yëpp di xoolante benn mag xool moroomam keneen ki xool ko xam nga léeg-léeg day af xoolu jógal yaa ngi noonu la ñuy jógal yooyu da ci am mais kenn jógul keroog ñoom ñëpp ñoo ngi xoolante Omar ibnu Xattaab wëraat ak fas bi tur na jàkkaaroog magi waa Makkatal Mukarrama xëcc làpp ba ba fas ba ngaa ngi yëkkati ay tànkam ba ca kaw wàccee ko mu jàkkaaroog ñoom mu ne innal abraara la fi naim wa innal fujaara la fi jahim ku nangu ci yéen ma yóbbu ko safara léegi mbaa kenn nangu jóg yóbbu ma àjjana xanaa demoo leen li ngeen di wax mag ñëpp na tekk toog Omar wan leen ginnaaw rëppatal ba fas bi sori Omar a bëgg xeex man xeex nii xewu ma nii rëppatal ba fas bi sori mu del si waat jàkkaaroog nag ñi mu ne li ma wax léegi fu ngeen ci toll. ah kii ay guerrier Seydina Omar mu ne li ma wax léegi fu ngeen ci toll mag ñëpp a xoolantawaat ba tuur la auteur reporter siwa Omarul Faruq Seydi El Hadji Malick nee na kudul Omar bi ngay dem da ngaa làkkatu kudul Omar Aboubacar moo dem ànd ak ak Seydina Mohamed waaye ñi ci des ñëpp dañu doon irsaalan irsaalan di làkkatu di dem Omar ibnu Xataab yoonu Madinatu Munawwara ñi demoon tool ñi demoon sàmmi ak ñi demoon jënd ci ay marchandises pour jaayaat ci ku ci dajab Omar jël beneen yoon. ku ko seen rek mun a huwa Omar ibnu Xattaab kii di ñëw jàmbaar ji Omar da daan da daan solu ba noppi takk bopp bi ba mu takku jël benn euh, dunku ganaar ci neexaayam mais dunku ba lay jël ganaar mu roof ko ci biir kawaram bàyyi ko muy frappe ci kaw gars yi nag ci loolu lañ ko lañ ko ràññee moom Omar ibnu Xattaab ku ko seen rek ne mooma de Omar la de ñi doon sàmm am na ñoo xamante ni dañoo seen Omar ci biir àll bi. ñu takk seen nag yi gën a sori yoon bi Omar war a jaar ndax jàmbaare yeneen te bee ko waxal boppam mbedd bu mu jaar benn fan seytaana daw ko ñeent fukki guddi kii jàmbaar la ma ne mbeddu Sénégal yii la Omar waroon a ñëw fekkee bisu tey jii di jaar rek mbedd bu ne mu dugg ci Seydina Omar ibnu Xattaab ci njàmbaaram makkatal mukarrama ba madinatu munawwara amul ku ko dab ci yoon bi ndax ku ko seen muy dem da ngay foog ni booy ñëw Omar day foog ni moom ngay dabi ji mu rey la mu tax gars yi kenn tukkiwul keroog biñ leen waxee ne Omar wut wuti na Madinatu Munawwara gars yi dañu ne nañ bàyyi tukki yi ba ëllëg ndax ku topp ci ginnaaw Omar bu la séenee gestu xool la xam ni yow lii may wax moo ngi ci téere bi ñuy wax al adab boo àggee ca saraaba bu liir ca yax ba déedéet moo ngi ca saraaba ndax lu nit di sonnee rek sonnee ko ci saraaba fala yi gën a am solo ne gaa yi bu ñuy tukki ñu ne nañu leb tukki yi bàyyi leen ba ëllëg ñu war na am ñu ñu gàttandu tey mu ne gàttandu jeex na bàyyi leen ba ëllëg Omar yi dem xaalil leen ko yoon bi Omar keroog moo xaalil boppam yoonam ba Madinatu Munawwara kenn dafa ko rëppatalul fas bi dàqul fas bi moo ngi yëg ci kawam fas bi di dox ndànk waaw fi gaa yi di gën a jaar Omar jël yoon boobu jaar fa mu ne leen du ma jaar ci yoon bu rokku yoon bi gën a yàq nga xam ni fu waay toll seen la fa laay jaar nit bëgg xeex rek ta rek Omar ibnu Xattaab dem na ba jubbu Madinatu Munawwara kenn dabul Seydina Omar ci yoon keroog bi muy tuub di dugg ci diine l'islam bi muy ñëw daaru arxam bi moom Omar ibnu Xattaab bi mu frappé buntu bi fëgg ko ki njëkk a tijji dafa tëjaat dafa tijji rek tëjaat ñu ne ko lan lan la lu xew mu ne Omar ibnu Xattaab la moo fëgg bunt bi booba jullit ñi ñoo ngi ci biir di jaamu yàlla mais ñemewuñu tijji buntu yi ndax Omar ibnu Xattaab ak Omar ibnu Xisaab ñaari Omar yooyu la Sayyiduna Muhammad doon ñaan kenn dugg ci diine l'islam pour jàppale xeetam ñaan na ko óor bu ne waaye keroog bu yàlla di nangu Omar ibnu Xattab la fekk mu jaaxaan keneen ti dañ ko fekk mu dëpp boole ci xaram ñu bett ñu ba ko fa ndax kii pour nga yee ko ba rof ci dëndam dafay dafay jafe te te te te te gars yi du ñu jël temps bu ñu lay jox dara gars yi buñ jël temps comme Omar lañu ñu fekk mu jaaxaan ñu rof ko iman ba mu jëpp rek fëgg wuti ji fi Sayyiduna Muhammad ne mu naan anam ayna rasulallahi ayna rasulallahi ba ki njëkkati ji bi mu jàkkaaru Omar def ko xàmmee dafa ne buntu bi ñett ñu ne ko looy tëjaat mun a Omar la keroog la nabi jël responsable boppam nabi jóg taxaw ne leen bu dee Omar la tijji leen lu mu fi fekk mu jël kenn du sayyiduna Muhammad Seydi Hadji Malick nee na séen naa ko xam naa ni mu mel xam naa kan mooy yonent bi kenn ëpp ko doole Maodo nee na wa kaana fahman habibullahi mufahhaman mursiduna gaayata tafhim Seydi Hadj Malick nee na nabi ponkal la woon moom Sayyiduna Muhammad mu ne ku mu téye doo rëcc yonent bi ñi mu doon àndal yëpp gis ngeen Omar bi mu mel buy dox fii tànkam di yëngal fële mais yonent bi moo ko ëppoon doole kenn du Sayyiduna Muhammad mais Omar ibnu Xattaab keroog bi mu ñëwee dugg ci biir yonent bi ne ko luy sa Omar ne ko rof nañ ma liimaan keroog bi mu tuubee waa xuray sin yëpp dañoo tiit Seydou El Hadji Malick nee fii ci Tiwaawoon laa toog man Malick Fa Wadda Wele ma seen ñaari xale booy bi ñuy wax xusnu ak booy bi ñuy wax zullu ay mag ak rakk lañu kii téye ci loxo rakk bi ñuy waaxu di dugg xuray sin Seydou El Hadji ne seen naa leen ndax keroog waa xuray li ñu am keroog mënu mësuñu koo am ñu ne Maodo bindal mu ne wasaara zullun wa xusnun ñoom ñaar ñooñu kii téye loxol kenn ki ñuy waaxu di dugg ci xuraysin wa zaara zullun wa xusnun yaa u xayya xuraysun maa yazunnuuna anna lamra zul wadabi Seydi Malick nee na keroog bi Omar duggee ci diina l'islam wa zaara ziyaare na fu mu ziyaare xuraysun waa xuraysin lan moo leen ziyaare mu ne xusnun booy bi ñuy wax njàqare wa zullun ak booy bi ñuy wax toroxtaan ñaari booy yooyu ñoo jiit la dugg ñu ne tey ñu torox ndax ki ñu yaakaaroon ak doolam ji bëri jë ak na mu meloon ak daan ñu jàppale l'islam bañ a avancé tuub na tey tuub na tey moom Omar ibnu Xattab ah xuray sun sëñ Haj Malik nee waa xuray sun maa yazunnuuna mës noo njot anna lamra lamra boobu islam lay firi inna diina inda llahi islam anna amra naka mbir mi muy islam bii di dem zul wasami du borom ak doole ba Omar dugg ca foogoon nañu l'islam du mos a doole ko ba Omar dugg ca waaye keroog ba ca Sayyiduna Omar ibnu Xattaab duggee la ñoom ñëpp ñu jaaxle Omar dugg ci biir kër Sayyiduna Muhammad fa ñu ne Sayyiduna Omar ne waa Sayyiduna Muhammad li ngay woote dëgg la nabi ne ko waaw mu ne waaw lakkatu bi di ko def ndax dana mën a wéy nabi ne ko du mën a wéy. Omar ne ko nañ génn ca Kaaba ga te julli Omar ne ko bu dee yàlla la ko sant yow nag it lu la yàlla sant nga jëfandikoo ko yow sayyiduna Muhammad ndax yàlla lay dey sa lépp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa nabi nañu génn ca Kaaba ga ñu julli ñëpp di ñu seen keroog Omar moo jiite délégation ba ñuy génn di dem julli bi ñuy génn Omar moo noddiloo Bilaal ne ko noddal ca kaw noddi Bilaal moo génnee yéefar yi keroog bi ñu génnee ba taxaw ñu seen Sayyiduna Omar seen Hamza ñoom ñëpp dañoo dañoo jaaxle ku ku ne tëll rek ne waaw ñii jënd jullit ñi mu seen Omar mu ne Omar a nga ca a ñoom ñëpp keroog ñi gën a ñeme ñoo gën a taxaw di xool Sayyiduna Omar kenn ñemewul ñëw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanam beneen mbir la parce que moo ma yàlla Omar force bu doon Omar bi la itam te doonul Omar mi Omar mi la mooy ëpp bii doole ndax ñaanu yonente bi bokk ak benn ñaan Seydi Hadji Malick nee na ba ñuy génn ndax fukki person la ñu am Omar mottali leen man Malick Fa Wade Wele xam naa ko ndax vingt cinq personnes la Omar mét mottali vingt ba man Maodo xam naa ko ndax 30 la Omar mëttali 32 heures bi xam naa ko bu mu ci mën a doon Maodo nee na xam naa ko ñu ne Maodo bindal gaaw mu ne wala yusalluuna illa fi siaabi ida mastadda usrun fa yusrullahi fil imami aw fil umami Seydi Hadji Malick nee na dañu doon fatu di jaamu yàlla fatu di julli Omar a ne julli Maodo nee na wala yusalluuna daanuñu julli illa fi siaabi lu dul dañuy làkk isa mastadda bii daafeer ba be demee ba tar ne làkkatu bi tar xajatuñu fi ñuy julli te làkkatu bi dafay tar bu nit laalee bunt bi doo teewlu ci julli bi isa mastadda usrun rek fa yusrullahi Maodo nee na ma seen yomb te yàlla dikk yàlla yombal mbir yi ci sayyiduna Omar ibnu Xattaab seen umma bi ci xeet bi si daa ji Malik nee na séen naa bi ñuy génn di dem Kaaba ga pour julli Maodo nee na séen naa leen ni ñu lëngoo di dem sax ak ni ñu génnee man Malick Fa Wadda wala maa ngi tiwaawoon waaye Bakar ak dara maa aram la Kumba Thiam Fa Wadda Farma Diop nee na xam na ni mu mel. ñu ne Maodo bindal mu ne wa innahum xaraju min ba'di kawnihi zujulan wa kaana sihaabu diini zaadarami zaadarami Maodo nee na. wa innahum naka ñoom saxaaba yu tedd yooyee daan ànd ak Moustapha mu sell ma xaraju génn nañu seen jaamu fànga ni fàngaaral min ba'di kawni yi ginnaaw seen lim zujulan quarante personnes ñu ne Maodo firil ñu zujulan ñu ko Maodo ne racine sept la jiim trois la muy dix lam bi di trente muy quarante personnes mu ne 39 la ñu woon Seydina Omar moo leen mottali ñuy 40 personnes ñu door ñi nañu génn julli ci yooyu la Maodo la Maodo la Maodo euh, noté gaa yi ci taalif ci yooyu zuju lan xoolal jazlun xoolal xus adda ma nazala ruuqul aminu in ala rusli uratibu kay ujja bi nazmihi ni xoolal yëppun li aadama nuunun summa taa fa li nuuhin summa muusa li ibrahima ak jubam bi daalun li idrisa insa haaza ya haaza ya insa walil habibi kattu alfan fala tahib ci yooyu la Maodo toroxalee gaay yi wallaay xoolal yooyu kenn du Seydi Hadji Malick ci yooyu ci yooyu maanaam boo xamul nan nga koy tekkee doo mën a dem te lépp def ko rangale livre 1 la ba 2 la jim 3 la del 4 la alcoubé 5 la waaw 6 la racine 7 la xaalonko 8 la todorom 9 la yaa 10 nga yëg lam 30 mim 40 nun 57 60 la ay ndëgër 70 la doot 90 la fa 80 hafsa nga yëg ra 200 sin su 300 ta tombé 400 ñetti tombé 500 adam dellu bu tooy 800 dellu bu tooy 900 sin su tooy 1000 aba jënd jeex moom la moom la di wayee moom la Seydi Hadji Malick di wayee moo tax ay wayam doy waar Maodo ne sujur lan 40 personnes ñoo ñoo génn keroog di dem julli ji te ki leen mottali ba ñuy garante mooy Sayyiduna Omar ibnu Xattaab kon da nga naan li gën a fort Sayyiduna Omar moo ko génnee te mooy julli julli Omar a ko génnee yonent bi lañ ko jox ñu doon ko làkkatu waaye Moustapha moo ko jëlee la Omar pour Omar génnee ko saxaaba bu ci nekk li nga am ci diine. ba ñëpp di la ko waxtaanee nga di ko namoo woo ko waaye yëg nga ni yaa ko def Sayyiduna Muhammad moo ko cëral la foofa pour mu génnee ko waaye lépp ci loxoom lañ ko tegoon moom nabi Sayyiduna Omar nag la cërale génnee julli génnee julli fii ci xadara bii sang bi wax na fi juróom-ñaar yoo xamante ni nee na ku ci teg tànkam tàbbi àjjana dangeen ko fàtte te ci julli la juróom-ñaar juróom-ñaar. waxtaaneewu ko fii nag ba ñuy nekk ca xadara ba ca kaw la ko waxtaanee woon ne képp ku teg tànkam ci juróom-ñaar yooya nga tàbbi àjjana naa ko bàyyi xel ba mu ko waxee léegi maa ngi jéem nag ci juróom-ñaar yi mu ngi ci alxuraan de génnewu ko ci am da ngeen koo fàtte jàpp ngeen lépp naa ko beneen yi. loolu ëpp naa fàtte. juróom-ñaar la jàngale fii ci xadara bi te bi mu bi mu bi mu njëkk a tudd muy tudd juróom-ñaar ya julli la xanaa war ngeen koo mën a fàttali ko xanaa. mus na fee diggante xadaf laxal muminuuna xoolal aaya bi fi mu tàmbali xadaf laxal muminuuna alladina hum fi salatihim xaafiuuna boo ko wàññee ba e, ulaika alladina yarsuuna alfirdaws hum fiha xaaliduun juróom-ñaar la lay jox sanga bi waxtaan na ko fii ci xadara bi e, Seydina Omar ibnu Xattaab moo génnee juróom-ñaar yooya maanaam julli ba moo ko génnee ca pénc ma fàng ni fàngaaral gaa yi julli te keroog yéefar yi mënuñu ci ñoom dara Omar ibnu Xattab la moo tax Maodo ne wa innahum xaraju min ba'di kawnihimi zujulan wa kaana sihaabu diini za darami wa binnabiyi aslamal faaruuxu bu la neexee aslamal faaruuxu binnabi wa binnabi aslamal faaruuxu summa bihim kaana al li naxwi al masjid moo tax Maodo ne wa innahum naka ñoom saxaaba yu tedd yooyee ànd ak rasulillahi mu sell ma xaraju génn nañu seen jaamu fàng ni fàngaaral min baax gi kaw ni seen lim zujulan quarante personnes wa kaana nekk na si xaabu diini jëmub diine ba nga xamante ne dañ ko fayoon saa dara mi muy boromu boy ngir sayidina Omar ibnu Xattaab moo ko nee na Omar moomu moo ngi jébbalu ci sayyiduna Muhammad kon béyit baa ngi tàmbalee wa bin nabi aslamal faaruq waaye booy firi dana naan aslamal faaruqu bin nabi si daaji Malik nee na aslama jébbalu na al faaruqu kiy tekkale dëgg ak neen bin ci sayyiduna Muhammad moom Omar ibnu Xattaab summa bihim toppa ñoom saxaaba yooyee ànd ak sayyiduna Muhammad summa bihim kaana xuruju li naxwil masjidil xaraami ñu génn di jëm ci côté Kaaba gi pour jaamu yàlla julli ca kaw ñëpp di leen seen ci la sukkandiku ma ne la sàng bi mos naa jàngale fii ci xadara bi ni juróom-ñaar a ngi ci alquran ku ci teg tànkam at ne nga pour nga am àjjana ba mu koy jàngale fële ci kaw lañu ñu nekkoon xadaf lahal muminuuna mu tàmbalee ko alladina hum fi salatihim xaasiuuna boo demee ba alladina yarisuuna alfirdawsi hum fiha xaaliduun juróom-ñaar la lay jox kon fooraayu julli la sayiduna omar génnee moo tax ma ne la sànq saxaaba yëpp kenn ku ci nekk li mu incarné ba téye ko ci loxol sayiduna Muhammad lañ ko tegoon nabee la ko yéene xaar ba nga ñëw mu jox la ko nga jëfandikoo ko ñëpp xamee la ci loolu Omar nag nabee ko cërale génnee julli Seydina Omar génnee julli moo tax keroog bi ma lay junju ci Aboubacar Sadiq ma ne la alladina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata muy Seydina Omar bi mu génnee di julli sax ña ña ña taxawal foofu yëpp Omar rek la doon xool ci mbooloo ndax ñàkk ñeme Sayyiduna Omar ibnu Xattaab ak jàmbaaram ak fitam ak fi mu toll ci yàlla moo tax Seydi Hadji Malick nee na ci rasulillahi la jébbalu moom Omar ibnu Xattaab moo tax Maodo ne wakaa wa kaana xablu fiihi diinu xumuulu xabla Omar ibnu Xattaab diina naroon naa diin naroon naa fay ba Omar di dugg parce que 39 personnes lañu ñemewuñu génn si daaji Malick nee na bi Omar duggee nag wakkaana nekk na si xaabu diini jumub diini za dara mi muy boromu boy mu yëkkati ko ca kaw na génn rek jaamu yàlla moo tax sahaaba bi euh, euh, sang bi Chérif Ibrahima Aïdara waxoon la ni alladina yu qad euh, aflaha almuminuuna alladina hum fi salatihim xaasiuuna xaasiuuna nag moo jafe parce que al imanu fi qalbin mumin ka sajaratin laha sab'atul aqsam faaw nga am iman julli door a dem moo tax yonent bi waxaat ci xadis ni ngëm yàlla ci xolu doomu aadama juróom-ñaari bànqaas la am bànqaas yooyu fii doxaloo ko nabi nee na li nga bëgg ci yàlla doo ko am al imaanu fi qalbin mu'min ka sajaratin laha sab'atul aqsam xusnu yantaxi ila qalbihi wa samaratuhu al irada wa siqa boobu moo jafe yonent bi nee na am na bànqaas boo xamante ni moom la ñuy tuddee xol mu ne boo ko laabalul doo am dara ci yàlla mu jëm ci li bi doon wax léegi di ko waxtaane eh, kilifa boo gis te yéenewul moroomu kilifaam jàmm te lu mu jekku teg ci kawam moo xam nu mu gën a bonee àggagul ci yàlla moo tax yonent bi ne bi ci jiitu mooy xol bi di am looy namm lu baax di jëme ti nit lu ci roogaat rek muy lu rafet mos naa koo waxtaane mu indi ci waw ci benn daayire dama ni képp kuy yeesal njàpp muy daw ci sa kaw sa loxo yi na set wecc mais sa xol bu setul sa njàpp njëriñul dara am oustaz bu jóg ne man moom lay waxal keroog maa mët rek nopp moo soow ba dem ma continue noppi ba léegi tontu ko parce que daayire jaamur lañ ma invité du ma ko tas ma nekk a Mansuur ko wax man waxuma ko Alaaji Mansuur moo ne wa tahiril qalba min iqdin wa min hasadin mu tënk wax ji ne wa kullu wasfin zamimin bayna al aqrani mu ne balaa yaram di la wa tahiril qalba laa balal xol bi koo jekku yéene ko li nga yéene sa bopp comme ni ko sanga bi waxee léegi mu ne boo ko amee al irada ngay am looy mu ci nit a seqatu wér la lay indil yonent bi nee na di bëggal nit li nga bëggal sa bopp la lay indil wér ñu la yóbbee ci dugg ci bitig yi jënd màttu xeref yi kenn xamul parce que faa mu fedd moo tax yonent bi ne bi ci toppaat te Sayyidina Omar amoon ko mooy xusnu yantaqi ila batnihi wa samaratuhu aklul xalaal wa tarkul xaraam mu ne bànqaas bi nekkaat ci yaram jur iman te Sayyidina Omar moom la incarné woon ba am iman jooja mu ne mooy bànqaas bi bàyyeekoo ci biir mu ne li muy bëgg mooy borom di lekk lu lu dagan tey wattu lu xaraam dana jur al imaanu fi qalbil mu ne moo ko jural Sayyidina Omar ci xolam mu ne bi ci toppaat xusnu yantaqi ila rijlayhi wa samaratuhu masyu ila al jamaa aw ilal uqaatil mubaarak mu ne am na bànqaas yoo xamante ni moo ngi ci tànk yi mooy li leen sang bi di wax fii chaque jour buy joxe tariqa bi képp ku ko jël boo mënee di jullee jullee juróom yépp ca jàkka ja moo tax mas yu ilal jamu juma jamaa ngay dox di dem wuti ci mbooloo ma julli tànk boo dëkk ñu lay bindal yiw ba nga àgg ci jumaa ja nga julli ba noppi génnaat boo dëggaat ba ci sa kër mu yiw moo tax yonente bi nee na bàkkaas boobu Seydina Omar incarné na ko ba téye ko ci loxom moom Omar ibnu Xattaab mu ne bi ko mooy xusnu yattaqi ila yaddayhi wa samaratuhu itaau sadaqa mu ne Seydina Omar jël na boobu ba am ko bànkaas bi bàyyeekoo ci loxo mooy lépp loo am ci lu baax di ci dimbalee doomu aadama yi alladina yunfiquuna bi leyli wa nahaar sirran wa alaniyatan ñoo bokk benn damir ba fa lahum ajruhum inda rabbihim fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun dafa jafe nag mais mooy indi texe boobu qad aflaha almuminuuna alladina hum fi salatihim xaasiuuna nga ne temm ci julli ji al iman tàbbi ci sa biir xol moo tax Seydina Omar amoon ko ba ñu tuddee ko amirul muminin moo tax mu ne beneen bànqaas bi moo ngi bàyyeekoo ci noy yi noy yi ilaa nafsi yi mu ne li ngay noy yi na doon la lew waaye seddaay nit boo romb ci mbedd bi cuuraay bi ci gill nga taxaw ga naan da ngay xaar nit sa fekk yaa ngay bànneex nee na bay noyyee loo xamante ne lew na ci sa bakkan mu noyyee ko mu ne ba ca toppaat Sayyidina Omar ibnu Xattaab mu ne fitam du ko dugal ci mu wax lu waxuwul xam nga am fit neex na mais lu ñor nga wax lu ñorul nga wax nga wax ba wax lu wax lu wul Seydina Omar loolu dalu ko moo dal sàng bii toog muy waxee ak fitam day jëmee ci alquran mu taajal la nga yëg ni kii mu ngi fitam waaye ci texte la ko teg te am na waxtaan bu mu ko mos a tudd ni layal sa kilifa baax na mais nga layalee ko ci lu tege moo gën a wóor Seydina Omar yooyu yëpp nekkoon ci jëmmam yépp Omar ibnu Xattaab jàmbaar la boo xamante ni la mu amoon li ma la waxoon sànq mooy li ñu teg ci loxol Seydina Muhammad mu jël ko moom Omar moo tax keroog bi mu tuubee rek yéefar yëpp dañoo jaaxle ñu bëri sax ci tuubu Omar la tuubee. ci tuubu Omar la ñu njëkkantee dugg ci biir diina l'islam moo tax Seydou El Hadj Malick nee na ñi ci ëpp nag jaasi Omar yëkkati na leen am na ñoo xamante ni jaasi Seydina Ali am na ñoo xamante ni jaasi Seydina Aboubacar waaye am na ñoo xamante ne benn jaasi yëkkiwu yëkkatiwu leen euh, leneen yëkkatiwu leen dañu xëy rek gis na bi di ko xool ci kanamam ba ñu lap ci Seydina Muhammad jëmaale ko ndax rafetaayam. moo tax Seydi Hadji Malick ne wa waccu xayril wara muxtaari min mudarin min atalaqi badrun fii dujaasuna bi Maodo nee na wa waccu xayril wara kanamu Sayyiduna Muhammad muxtaari ki yàlla tànn ki yàlla tànn te mu doon fu gaaña min mudarin bàyyee ci maam bàyyee ko ci maamam bi ñuy wax mudar min atalaqi mu ne boo ne kanamam jàkk dafay nas nasi mun a bàyyil kanam nga si daaj Malick nee na dawal ca dox ko ba nga seetaan ko min nuuri irniinihi qad zanna naazirahu iza taajjala an ay annahu qad haaza min samami damiru mustatirun taqdiruhu anta ay annahu mu ne min nuuri irniinihi ci leeru dokku sayyiduna Muhammad irniin dana firi sang dana firi bakken dana firi wa asamma muktahilin ca borom daaliya wa asamma muktahilin ka habbin batirin a'dadtahu linnaibati mujarradi ca borom daali moo tax mu ne min nuuri irminihi xat i nazirahu iza ta'ajjala an ay annahu xat haaza min samami mu ne leeraayu bakkanu sayyiduna Muhammad boo ko xoolee da ngay foog ni bakkan ba daa yëkkatiku te fekk leer moo ko mottali Seydi Hadji Malick moo xam yonent bi nee na leer moo mottali bakkan ba mu yëkkatiku bokkut ak sama bakkan mi na dajji ci biir nii nga xam ni doo seen luy génn tuuti mais seetaan leen rek ah isa taajjala an qad haaza min samami Maodo nee na boo gaawatuwul teg ci say bët nga yet nga làppee ci yiw bu bëri ndax bakkan ba leeraay ba li nuuri irni liggéey Seydina Omar nag moom la Maodo di léebu fële jaa bil ayaati wa جاءوا بالحزوات جاءوا من الوجه المصطفى المزوني وبخيله نك xoolal جاءوا من الوجه المصطفى المزوني leeraayu kanam nga am na yéefal yoo xam dañ ko xool ba ci yàgg rek mënatuñu koo muñ ñu sukk ci wetam tuub am ñoo xamante ne alquran ba la ñu dégg wa is sarafna ilayka nafaru min al jinni yastabiuuna alquran ci neexaayu alquran ba la ñu dégg même jinne yi dugg ci diin al islam alquran moo leen dugal ñi ci ëpp wa istarafna fa naanal ilma kal alami la Maodo bind ci xilaasu sahab topp topp alquran wa istarafna ilayka nafarun min al jinni Maodo ne wa istarafna fa naanal ilma kal alami ci la ñu tukki ñoom ñëpp am yéefar yoo xamante ni Seydina Omar dafa yëkkati jaasem Omar mos na di doxantu madinatu munawwara am ku ko seen rek daw tuub da Omar jëmul ci moom.